ànd ak Moustapha Guèye Moustapha kii mooy Ramadane kii mooy mobile mais mobile man géej naa ko may mobile station yi amatul non. mobile euh, mobile gi en tout cas. waaw mais xam nga amoon na ay station mobile. si station mobile. mais station mobile amatul. amatul léegi. waaw ah. moo tax na xam naa war naa xoolaat moom affaire am ah. <laughs> Ramadane station mobile Ramadane fu mu ne. <laughs> Ramadane mi ngi nekk euh, Dóor Dóoraat bu ñoom Zos. mobile. mobile nekk Grand Yoff mbooloo. ok mais am nañu taxawaay de. am ñu taxawaay c'est des vrais athlètes vrais athlètes surtout que mobile hein. Mhm. bien tracé bien dessiné mhm. mais je pense que day am problème déséquilibre ci action ah ah. en général rek ëpp équilibre rek ci combat bi mooy chance ah. ba xalaat ah. ah Aïcha ñu dem. ba tey le contrôle d'Amadou Kati Diop mon maître mon entraîneur du ma juum tey xalaatu ma juum sama dafa tàng tey jii mobile Grand Yoff mbooloo seen wàllu ndeyjoor jiital tànku ndeyjooram Ramdan équilibre dóor ba tey moom tamit tànku ndajoor fii seen wàllu càmmuñ ngeen bul bula moom ki nga xam ne mooy Ramadaan ngeen bul weex ki nga xam ne te mooy mobile vamos maaw ñu dem ah téere ba ca gannaaw ayca Leewtoo jàppante loxo ah Boubacar salaamaaleykum kon fañ kon fañ ndajoor gis ne euh, Ramadaan envoyé direct du droit mais direct bi mu envoyé nag vraiment taxawaay bi baaxul. garde bi baaxul parce que booy dóor. sa loxo dafay nekk sa kanam nga mën a dóor. Hmm. bu bu dara ñëwee bii dindi ko. mais Ramadaan loxo baa nga ca gannaaw. bu bu adversaire mobile doon fayu du ko mën a paare. encore ñaari taxawaayu tànku Ramadaan yi dafa sorente yoo trop. Hmm. mën na door bi ci kanam mais bi ci ginnaaw mënul dóor dara fi mu ne nii. d'accord il faut vraiment nga am ay jambes yu xaw a semi écarté mais trop écarté c'est pas trop serré c'est pas bon juste million pour nga mun dóor droite dóor crochet. vaamassement ñu dem. et. Eh. dóor ba dalul jëlante nañu. jël na ko bal ko aj ko nag ñaari li ñuy wax dëbb ñaax Boubacar. Ah. dëbb ñaax boo ko déggee mooy ki jël ñaari loxoom bal ko ci ñaari poqataanu benn adversaire bi yëkkati ko. adversaire bi intelligent wàcce ko ci kudd bi braaw bii dafa am importance. Hmm. loxo bi nga xamante ne mooy loxo ramdaan. Hmm. fi mu wàcc nii di yóotu gagné dafa am solo. ba pare tànk bi mu jël pakk ko empêché ko. mu mm-hmm. important ni mu xaw a def nii moom moom Ramadane ah. mm-hmm. tax na adversaire bi na ko yëkkati rek te fu mu ko jëmee. Mm-hmm. fi mu ne dugal na mais mënul dem parce que dafa wàccee tànk bi. dafa jël ñu balankaar ko kepp ko. léegi Ramadane dafa kepp ñaar loxo yëpp def tout son poids wàcc jëm ci suuf. waaw tey tey mobile mun na ko téye rek munu na ko yóbbu à gauche mën na ko yóbbu à droite. d' accord ay jamono ñu dem. xool ma lii dugal naa loxo yëpp hmm. bañ a génn saako yi moom moom moom Ramadaan hmm. c'est intelligent ça bu génnee saako yi dañ koy benn avertissement mu nekk dix xamatuma quinze pour cent ci reliquat hmm. c'est malheureux nga gis ne kon fii Ramadaan dugal na loxo ba ma ngay jekki-jekkal xool loxo ba muy génne moom pour dindi pakk ba c'est important lii mobile def nii ndax loxo ba ci biir day may adversaire ba muy liggéey mu génn ko ci biti nag waaye moom jàppul fenn de bi jàpp na fépp mu dóor ko mu daw génne bopp mu daw génne bopp féete nële nekk à l'abri mu xam ni du ko jot mu koy yóotu mu bañ xoolal rek da ngay jàpp ñu bañ a jàpp c'est intelligent Ramdaan jàpp naa ñaar loxo kenn du ma jàpp xool ma lii ñaar loxo mobile Ramdaan yëpp ci biir mobile jàppul fenn dul teg boppam ak lijjanti fi muy jàppee Ramdaan a ah, tenu le bon bout dugal naa jàpp naa kenn du ma jàpp c'est important ça vamos maa ñu dem jekk-jekkal jékki-jékki ah ma nga téegi téere voilà c' est dangereux aussi les téere ah téere yaa ngay rocceeku téere yaa ngay dagg téere yaa ngay tàggoo ah boobu kat lii lan la toujours euh, borom gemb bu bleu bi daf koy bëgg a profité dóor na sànq jàllul fi mu nekk nii dem nañu ba ci digg bi mu bëgg fexe nu mu ko poussé mu génn ma ngi ko jël nag laal li ko nag di ko plaqué xool Boubacar la càmm càmmuñu ki nga xamante ne mooy Ramdaan tegu na ca oomu ki nga xamante ne mooy mobile Ramdaan dëbb na ko sol ci loxo ndeyjooram laal na ko def na prise bu parfaite mi ngi koy dàq nag léegi pour seet nag ndax ni mu ko plaqué tax ko daan ou pas qu'est-ce que ça va donner vamos ma xoolal ma lii plaquage pourtant mobile mi ngi koy waaw fii nag Mao dafa amoon benn dafa am benn taxaw seetlu. partie bi ñu doon bëree nii dafa xawoon manqué suuf saabu. Hmm. gis nga ne ki attaqué woon. mi nga xamante mooy daan dafa glissé bay daanu dafa doon daanu tout seul lii heureusement pour moom booy xool fii gis nga ne teg na trois appui benn ñaar ñetti appui bii rek moo ko taxee daanu uh-huh. adversaire baa ngi ca kaw uh-huh. léegi nag affaire yi ñoo war a ñoo war a balancé wu dem ci beneen côté bi léegi nag nan lay réagir moom ki nga xam ne mooy daan loolu la ñu bàyyi téléspectateurs yi xool ko seen bopp vamos Mao la réaction de Ramadaan ñu fekk ko fa ko xool adversaire ba tamit adversaire ba encore ba xool ma lii. adversaire tam glissé na comme moom même chose. Hmm. il a glissé xool. lui aussi a glissé. a glissé ah. dem kat appui. c'est mort. maa woo ñu xoolaat loolu waay salaamaaleykum. ah. qu'est-ce que ça va donner. que des glissades ah. parce que tout simplement il y avait pas de si glissé. glissé. kii ko njëkk glissé woon tamit. nga gis ne kon film ops dafa am problème d'équilibre mobile hmm. parce que la musculature la musculature nag boo ko amee da nga koy magnifier ak assouplissement ak plein de choses yoo xam ne mooy tax boo waree daanu doo daanu mais en général les lutteurs musclés comme ça bu ñu trébuché pour daanu ji daanu parce que kii moo gënoon bonne position pour daanu mais maintenir ba tànk bi tëddul mu teg ñett la jógaat mais kii tout de moom à tout seul mujj ci ay glissade par manque de sable mbëri jooy nañ ko ñaari mbëri ko jooy ah manque de sable ñoom ñaar di glissé kenn ki perte combat c'est pas grave c'est la vie ah koy mbokk téléspectateur yi gis ngeen ne kon kii di Ramdan bu dóor dóoraat nii la daanee ki nga xamante ne mooy mobile jël bu set wecc bu amul benn benn benn werante merci beaucoup